waaw kay asalaamaaleykum eh, xam naa tey dañuy ñëw di def benn fàttali ci li nga xam ne doon nañ ko wax ci weeru koor ci fan yi ci ginnaaw ci li nga xam ne moom la yàlla jàngaleel boppam mu wuuteeg li nga xam ne nag moo fi nekkoon nga xam ne jamono bu ne danaan jur ay werante ñii di wax naan weer bi bis bii lay tàmbali ñee weer bi bis bee lay tàmbali te yàlla moom li mu jàngaleel boppam nekkul ñuy séentu weer bi ndax lu mu wax ci sourate 2 aya 185 ni shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan nas wa bayyinatin min alhuda furqan lum ca tek moy faman shahida minkum ash-shahra falyasmuhu ku fekke ci yéen weer bi nako wor ku fekke ci yéen weer bi nako wor woor bi nak mom yàlla dogal na mom inshallah mo ngi commencer mardi manam 17 h 24 ci la wèr bi di commencé ndax yalla waxul gis wèr bi mais ku sétane extrait bi ci top rek inshallah allah dina mëna lèr ndax def nañ ci vidéo fan yi ci ginnaw wèr bi mom inshallah mu ngi tambali mardi 17 h 24 kon fajar gi nga xam mo ci top mi fajaruk ma fajaruk àllarba ji muy nekk àllarba le 22 fajar gogu ci bir wèr wi lay nek nga xam kon wèr bi mu ngi tambali ci mardi 21 21 mars 17h24 fajar gi ci topp nga xamne moy fajaruk àllarba ji di àllarba le 22 mars 2023 fajar gogu ci bir wer bi lay nek kon kep ko xamne ne bëgg naa dëppoog li yalla jangalel bopam ci koor lu mën xew bis bob mom da wara a woor nga xamne lolu moy li nga xamne mom moy li yalla jangale te ko setan extrait bi lolu dina mën leer ci yow kon dal ko kon dal kep ko xamne li yalla jangale la bëgg deppol bëgg am payug yàlla ca la muy jëf na jëf li ko borom bi digal nekkul ne lii lañ fekkoon suñuy bàyyeeg suñu maam yi doon ko def ndax yàlla li mu leen toppaloo mooy moom li mu wàccee waaye toppaloowu leen li nga xam ne moom ngeen miinoon seeni i baay wala li nga xam ne moom ngeen fekkoon seeni i baay comme nga xamee ne noonu la koy jàngalee ci alquran di wax ne wa iza xiila lahum ittabihu ma anzala allahu ñu ne xaalu bal nattabihu ما ألفينا عليه آباءنا متكنا أولو كان آباؤهم لا يأخذون شيئا ولا يهتدون أقلون وحنا وإذا خيل لهم اتبعوا ما أنزل الله خالوا بل نتبه ما وجدنا عليه آباءنا متكنا أولو كان الشيطان يدهمهم إلى عذاب السعير أخبر نيني سوين وخير نرم راوين تنغينا توب لكم نيني أخبر نيني ويد سنين لين وخير نرم وين تنغينا توب لكم نمم ليالا جواتي ñom liñ lay wax moy ah ñun de liñuy top moy li nga xamne mom lañ miné suñuy bàyyi suñ borom tek ci ne waaw donte sax seen bàyyee xelu wuñ won te gindé gindeeku wuñ won ndax xelu gi moy lan manam am lo xamne mom lañ ñen jangalon ñu jilé won ko ci yeneeni téré ñu japp na loolu moy diiné te suñ borom dogalul ñu bàyyi xel alquran ba mëna xamne yalla waxul kuko gis waye kuko ko la wax suñ borom nak dogal ci mbaxam ak yërmandeem ñu dem ba benn jamono manam ñu dem ba xam ne yàlla kat la mu jàngale ak la nga xam ne moo fi nekkoon daan jur ay werante yu bare bari ndekete loolu dara boolewu leen te yàlla la mu jàngale moo gën a noppale te nit ñi suñ ko dee def benn werante du am suñ ko dee def benn werante du am te it ay wuute yooyu ñu daan gis ci ay bis bi la ñuy woor ak bis baa la ñuy woor dootul am kon nag képp koo xam ne moom ngërëmal yàlla lay sàkku wala képp koo xam ne dëppoog li boromam jàngale te joxoon ko ab yonente mu jottali ko loolu la bëgg a topp kooku moom lu mën a xew su boobaa yàlla moom lii la jàngale boppam wuuteeg lool la nga xam ne moom lañ daan def su ngeen demee ci al alquran sourate 2 lu commencé aaya 183 ba aaya 187 baamu nañ ko ay yoon li aju ci koor yépp suñ borom ci diggante boobu la ko wax su ngeen demee ci aaya 185 yàlla moo wax ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan lu mu ca teg fa man shahida minkum achahra falyasumhu ku seede ci yéen weer bi na ko woor mooy ku fekkee ci yéen weer bi na ko woor fekkee la yàlla fekkee yàlla waxul ku ko gis damay wax ne yàlla su fekkoon dafa wax ne maanaam ku gis ci yéen weer bi na woor kon ku gis képp lay concerné ku gisul du woor su yàlla waxoon ne ku gis ci yéen weer bi maanaam weer bi mi astre bi na woor kon ku gisul du la concerné mais yàlla njàngaleem dafa matta dafa matale li mu wax mooy faman shahida minkum ash-shahra te fii li yàlla wax ash-shahra nekkul lu ñuy gis lu ñuy fekkee la ash-shahra mooy le mois bokkut ak la lune di xamar di lastre bokkul olof nag moo nekk làkk boo xam ne astre bi di weer bi ma di weer wi muy la lune ak weer bi muy le mois benn moom benn baat lay wax weer rek lay wax waaye soo demee ci alquran yàlla waxul weer wi muy astre bi dane ku fekkee ci yéen weer bi muy le mois na ko woor loolu la yàlla jàngale fekkee la wax waxul gis su fekkee da ngeen wax naan waaw xam nga ciintu weer bi ni ñu mën a xamee ne mu ci tàmbali na wala nàngam su fekkee dangeen ngeen wax sax bu njëkk ba nga ne boobu nit ñi amul woon yenn moyens yi xëy na pour ñu xam ne weer wi tàmbali na wala tàmbaliwul faaw dañ koo mën a gis mais loolu weesu na su ngeen demee ci alquran yàlla jàngale na lu jëm ci astronomie su ngeen demee ci surat 10 verset 5 يالله وحنا هو الذي جعل الشمس ضياء والخمر نورا وخدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق نفصل الايات لقوم يعلمون مي لولو نان لقوم يعلمون بوب نان موي نيغا خامي ньо خام لي ادي تي والو استرونومي استرونومي في جامونو بي تولو لو خامنا اوبنا اي وير ولا لو خامني لو خامني ما دا مات گن جانيو 10 jours mën nañ laa wax ne weer sàngam bis sàngam lay tàmbali ci waxtu sàngam mu nekk lu leer weer sàngam bis sàngam lay tàmbali ci waxtu sàngam ndax fi mu toll seen jàkka yi waxtu julli yi nga xam ne moom ngeen affiché lan moo tax ba ngeen wuti ay orloge def ko ci seen jàkka yi lan moo tax ba jëlu leen ay xeej dem teg ko ci biti di xool maa takk ndeer bi fan na toll comme ni ñu ko daan defee bu njëkk ba parce que bu njëkk ba moyen boobu moo amoon. léegi jamono weesu na foofu te foofu yéen a ngi dëppoo fi jamono toll mooy wuti ay horloge fii nag yàlla wax li muy wax nanguwu leen caa dox yàlla waxul ku gis weer yàlla ku fekkee weer la wax te fekkee moo gën a yaatu gis fekkee moo gën a yaatu gis moo gën a yaatu gis te ci misaal loo xam ne dinaa ko bàyyi loo xel nit ñi surtout sax astronomie ji am na ñu ma ci gis ñu nekk fii ci réew mi waaye dañuy xaw a ragal. C'est un problème jarul ngeen ragal rek fi ne keneen newu fi su fekke wax ne weer bi dana comme en 2020, de vidéo dana du matin 2h du matin su dana heures du matin nga sais que 2h du matin su nga xam su joté weer bi mom commencé nañu xam nit ñi xam dana kon yow su la fekkee ngay dund te wér dara jotu la yow fekkee nga ak lu mën a xew su fekkee nga wér tukki woo maa te nekkoo ci tukki da ngaa war a woor su boobaa fajar ga ca topp nga xam ne deux heures du matin la weer bi feeñ fajar ga ca topp li li war ci yow su fajar gi xaree soo doon lekk da ngaa war a arrêté lekk fajar googu da ngaa war a woor waaye soo toogee di xaar naan dañuy gis weer bi dana commencé ndax nekkul ne weer bi day tàmbali rek ñu gis weer. weer bi mën na tàmbali benn fan ñaari fan ngay soog a gis weer doo ko tàmbali te soo tàmbalee am na ñaari bëccëg yu mat sëkk yoo xam ne ci weer bi la bokk te wooroo ko te su boobaa soo bëggee woor vingt neuf jours wala trente jours di nga woor bis yoo xam ne ci beneen weer la nekk te lii nag mu nekk lu leer te loolu ku ko def toppoo ndigalul yàlla yàlla benn weer bi dala woorloo ne la fa man shahida minkum ashahra ci benn weer kese la la woorloo soo duggee ci beneen weer loolu sa yëfu bopp la te li tax nag ñu mën a tegu ci weer wi mooy xam li ñuy wax astronomie xam maanaam weer bi kañ lay tàmbali suñ ko xamee su fekkee ne waxtu wi muy tàmbali dafa fekk waxtu woo xam ne fajar jotagul lu mën a xew dañuy woor loolu la yàlla jàngale te léegi loolu moyens yi bari na bari na ay site internet bari na fii Sénégal ñoo xam ne dañ ciy wax loolu mooy li yàlla jàngale ku def leneen ci sa bopp nga nekk. jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum.